asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bu ngeen gisee sunu jataay bii rek ñu ngi woote ci lu jëm ci màggalu Daaru Muxti ni ko daan defee at mu jot ren jii nag ñu koy def ci ndigalu sëriñ Abbas Mbacke moom borom daaru ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi lool ci mu wër ak ci teewaayu sëriñ Mame Balla Mbacke ak Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Abbas tey ñaanal it Serigne Cheikh Khadim ko fàttaliku bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom doole koy leer dafa mu nekk. kon nag bu ngeen gisee jataay bii rek ñu ngi woo mbokk taalibe yëpp ak mbokk jullit yëpp ci bisu borom daaru moxti bi nga xam xamante ni mooy bisu Serigne Touba mooy bisu yoonu murid wépp kon nag ñu ngi woo daayira yëpp di ko tàmbalee ci daayirab Serigne Modou Moustapha ba ci daayirab Serigne Bassirou ak daayira Baye kenn ku lim da juum ak mboolem daayira soxna yeeg ñëpp ñu ngi woo ñëpp. bis bi leen ci woo di leen ci soññ te xam ni bisu borom daaru moom bisu bisu bisub bisub jàmbaar la bisub bisub bisub gor la bisub góor bisub bisub bis bu xamante ni daal képp ko nga xamante ni bëgg nga lu baax rek war nga cee yëg sa bopp war nga cee góorgóorlu te noonu moo ko doon junjee léegi rek keroog ba Serigne Touba jógee ci géej gi woo maam Thierno mu leeral ko liggéey bépp li mu fi bàyyi woon lépp Serigne Touba ko ca tegal mooy Thierno bu fekkente ni woon maa demoon nga des fi ndax lii nga man danaa ko man loolu nag yaakaar naa ngërëm mënut a weesu foofu loolu tax na nag bis bii bu ñëwee képp kuy jullit képp kuy taalibe war ngaa fexee góorgóorlu ba ñëw ci ngërëm loolee maam Thierno amoon ca Serigne Touba te maam Thierno doon buntub Serigne bi. képp ko nga xamante ni bëgg ci ngërëm loolee fexe ba teew ci bis bi ba fexe cee jariñu kon saal bi dañ ko defe woon daaw fa lañ koy defewaat te à partir de 10 heures incha allah lañ koy def salle bi adresse bi mu ngi nekk 11 15 rue Luison Bobé 93 600 Aulnay-sous-Bois nga xamante ni bu 10 heures jotee ba ci 6 heures du matin ji incha allah ña nga fa ci njàngum alxuraan ci njiitalu Serigne Bousso bi Bousso ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi fi nekk ñëpp rek ñu ngi ci biir ak it njàngum xaside yi nga xamante ni Serigne day maanaam maanaam Serigne Pathé Mbaye ak euh, Serigne Baye Ngom Rijal ak euh, Cheikh Awa Balla Seck ñoom ñëpp dinañ teew ca bis ba kuréel xaside yi tamit kuréel Touba Aulnay ak kuréel Touba Taverne ñoom ñëpp danañ teew ca bis ba